yenn kaay yi ñu ànd ceeg Serigne Saliou Seck dalleen ak jàmm njiitu réew mi di président Macky Sall tey ci Touba daanaka yéenekaay yi nu xëyandool ñoom ñëpp xëy dina ko xibaar l'observateur ca la bokk yéenekaay groupe Futurs Médias bi ne diirub bi mu jëlee réew mi ci atum 2012 ak léegi njiitu réew mi di président Macky Sall saa yu màggal gi jubsee dafay amal tukkib nemmeeku ci dëkk bu sell bi di Touba journal bi ne moom Macky Sall en tant que président de la République màggal 2023 bi mooy nar a nekk màggalam gu mujj xalif général des mourides di itam rafetlu réalisation yu rëy yi mu fi def moom njiitu réew mi lii quotidien président Macky Sall kay diirub 2012 jàpp 2023 def na ci Touba lu ëpp juróomi téeméer ak juróom-benn fukki milliards ci xaalisu CFA nekk ay réalisation yoo xam ni yéenekaay bi lim na ci autoroute Ila Touba hôpital Matlaboul Fawzeyni assainissement bi ak li ci président Macky Sall dugal ba ci yeneeni mbir Direct News moom it xëy di mottali réalisation yi président Macky Sall jot a def ci dëkk bu sell bi di Touba lim na ba limaale hôpital bi mu fi mujj a def di hôpital Cheikh Ahmadul Khadim Vox Populi tey jii ci alxames ji daal la président Macky Sall di màggal si waaye nag benn xumbuteef du am jàmm li ko waral moo di ne xalif général des mourides di sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke moo tere lépp luy politique ci dëkk bu sell bi di Touba tax itam comité bi sàlloo lu aju ci dëkk bi di artu way politique yi rawatina pro Sonko yi nga xam ne bëri na ci ñoom takku nan taxaw ngir salfaañe nganu ko njiitu réew mi moom Ousmane Sonko kenn ci avocat yi koy layal di maître Juan Branco xëyaat na di ko tubayul ci yéenekaay yi nu xëyandool Vox Populi ne Juan Branco kay révélation dëgg la def ndax nag dane Ousmane Sonko résolution politique ak am na ci réewum Sénégal te loolee nag soobu na ca l'observateur xëy dëggal ci xëtam loolee an Branco wax journal bett jàppee ko kàdduy mbetteel le témoin ne lu ci mën di am daal moom Ousmane Sonko Ismaïla Madior Fall di jëwriñ ji nu dénk wàllum yoon ci gouvernement bu Sénégal nee na mënta bokk ci élection présidentielle atum 2024 journal bi ne moom Ismaïla Madior Fall la tax mu wax ko moo di ne dossier bi doxoon ci diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr féete na boor Ismaïla Madior Fall ne loolee rek buñ ca yamee moom Ousmane Sonko du mën a bokk ci ay élection présidentielle fii ci réewum Sénégal ndax aw turam dañ na ci liste yi Juan Branco mel ni ku naan ko loolee moom mën a gut a nekk te itam mbir la moo xam ni féetewul boor ndax konti max bi mu làmbool ci biléb dossier Walf Quotidien ne gannaaw kàdduy ministre de la justice yi daal werante ak xel ñaar am na ci diggante Juan Branco ak jëwriñ ji nu denk wàllum yoon ci réewum Sénégal tribune yéene kaay ne Ismaïla Madior Fall lay wuyoo te itam li mu wax démb journal des médias bi nee na day dëggal li mu duppee crime jëm ci leader bu Pastef bay firndeel ne moom Ousmane du bokk ci élection présidentielle yu atum 2024 Ismaïla yemul foofu ndax nag leneen lu mu wax waa Jeune Afrique moo di ne li waa ku jégi di wër naan am na lu ëpp junniy détenu politique yu nekk ci réew mi loolee du dëgg ñu nu jàpp ci ay manifestation lañ leen jàppee te ci juróomi téeméer képp la ñuy tollool sursu amel ni ku naan ko nañ ca yokk coordonnateur jeunesse Pastef gawoon ca Kébémer ndax nag yéen kaa bi nee procureur de la république moo joxe ndigal ba gaañi teg nañ ko loxo Bougane Gueye Dany moom teg journée nationale la nar a amal ca Tambacounda Koumpentoum Koungheul Malem Hodar jàpp Kaffrine susu aane Bougane Gueye kay li mu xamle moo di ne yàgg nañ koo téye ci ay parrainage te moom matal di def dafa la ci a jóg le témoin ne parrainage bi daal xawma lan waaye nag Bougane Gueye Dany moom noppi na ca te itam bëggul mu nekk layu njiitu réew fi nekk di président Macky moom président Macky Sall les la sant ay ministre ba ñaari fan ci weeru avril atum soleil national ne njiitu réew mi di président Macky Sall kay li mu xamal gouvernement bi moo di ñu xamee priorité yi te jublu ci priorité yooyee jamono ji dara jiitu ca mbënn mi teree nelaw réewum Sénégal surtout quotidien mooy farata ndax ndoxi taw yi tàbbal na ndakaaru ak ku banlieue am ci njàqare te loolee itam lanu fi nemmeeku atum 2012 ak léegi journal bi ne Touba itam daanaka topp na tànki ndakaaru ci mbënd mi Touba googee la journal bés bi la jour xëy yéenekaay bi di wax ci ko journal lee fa itam di faram-fàcce tukki bi Serigne Touba Cheikh Ahmad Rasoul amaloon ca réewum gànnaar ak ca Gabon Gabon moom coup d'état moo fa am Le Quotidien général Brice Oligui Nguema moo fa daaneel nguuruk Ali ba noppi def ko ci ab résidence surveillée enquête yéen kaay ne Ali Bongo ka jiite woon garde républicaine ba moo ko daaneel gabonais ya ña ca ëpp nag contentement bu rëy lan ca amee gabonais yi nekk fii nii ci diwaanu Ndakaaru sax dañ ci doon jubilé ban jot leen a gazé Marilo moom kenn gazé wu ko waaye yóbbu nañ ko kaso ni ki démb Libération yéen kaay moo joxe xibaar bi bi ne mooy ndaw si nu tudd dóoru ko juróomi téeméeri million ci xaalisu CFA million yu bari la Gris Bordeaux amee ci làmb ji waaye nag déggagul daali déggagul itam roi des arènes sunu làmb yéen kaay ne la ko waral moo di moom tigre bu faas saa yu nu jàppee ni roi des arènes jege na ko lool boobee la ko gën di sori